salaamaaleykum euh, mbokk internet univers info TV bienvenue dans votre euh, euh, nouveau numéro ci émission bu mag bi nga xamante ni moom ngeen tàmm di topp à travers univers info muy cœur ouvert qui est un coin de discussion entre man ak samay invité on parle de tout sans rien se cacher les yeux dans les yeux tey nag ki ñu toogal nekk benn icône ci musique sénégalaise nekk icône ci Faramareen famille Faramareen dans sa globalité nekk icône aussi ci li nga xamante ni moom mooy euh, ay kàddu yeete ak ay kàddu dëgg yoo xamante ni tout le temps da koy génne di ko teg fi fi nga xamante ni moom mooy sur la toile tey nag ñu seet si ko muy Papa Ousmane Seck ah, di bàyyi ci euh, Mandiaye Seck ñu seet ko tey ci këram fas yéene waxtaan ak moom mais bala ñu see sori dañ koy bàyyi mu nuyoo yéen mbokk internet di ñu soog di tàmbali waxtaan bi papa ñu ngi lay ziar. fii si maa ngi ziar. Mm-hmm. di leen sant gërëm leen ci ñëw bi ngeen ñëw. Mm-hmm. mais tout d'abord dañuy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ah ñaanal suñu waajur yi tëdd barsax foofu gënal leen di ko ñaanal bépp jullit bu nekk ci biir suuf mais eh, di ñaanal sëñ Muntaxa muy suñu sëriñ Touba ci kaw suuf mu yàgg fi te wér ma di ko jaar nag ci sama sàng bi Cheikh Bass Abdou Khader Mbacke di ko ñaanal moom it waaye di ko ñaanal aussi kilifa diine yëpp yi na ci réew mi ak yi nekk bitim réew. Mm-hmm. di ñaan euh, waxtaan bi ñu nar a am ak internet yu univers. Mm-hmm. mu nekk loo xam ni mm-hmm. luy jariñ ñëpp la. te yàlla bu ñu fi wax nag leen rek lu ñuy xeebee mbaa ñu ñu koy reprocher quoi. yàlla mën na ko ndax wax moom dafa jafe. mais nag ah ñu ngi ñaan yàlla mu suturaal ñu ba li leen fi ñëw daal mhm. ah, ngeen am satisfaction ak internet yi nga xam ne ñooy suivre mhm. info réew mhm. ah info univers info voilà am na solo nuyoo bi am na solo papa ñu la koy delloo bu baax di la remercier ci sa disponibilité mais waxtaan bi dañ koy tàmbalee ci sa carrière euh, père dañ la gëj a gis ci euh, ci milieu musical bi ci lan nga nekk waaw ah, xam nga per nga wax <laughs> boo nee père nag mooy père fi mu nekk nii day jël temps day da koy def nu mu ko sentir rek. Eh. parce que xale yaa ngi ci. Mm-hmm. kenn ku ci nekk tamit eh, yaa ngi ut place. Mm-hmm. per moom place bi ko yàlla di jox jox na ko ba pare. Mm-hmm. xëy na aw ma xaalis nag. mais am naa fii nga sama kër doom la. Uh-huh. sama doom yu baax. mooy profité di leen gërëm muy Bamba ak Mouhamed. samay doom lañu. Euh, ñoo nekk ci kër gi bi ngeen ma wooyee fekk ma nekk fi man leen ngeen ñëw ñu def ko fi benn la mhm. donc ñoom aussi ñi ngi Amérique maa ngi leen di nuyu au passage di nuyu seen soxna yi mhm. muy euh, Ndoya sama doom nga xam ne moom moo nekk ci kër gi mhm. ak Awa Gueye moom it di jabaru Mohamed Ndoya mooy jabaru bàmba d'accord waaw ah, euh, ñu nekk fi nag ma nekk fi sama doom boo xam ne moom mooy jiili nga xam ne moom maag papaam ay colère lañ moo nekkoon sama ménagère muy Aline Diop léegi mi ngi mi ngi itali ma di ko moom aussi au passage di nuyu jabaram Khady Lam ak xale yi macha allah euh, awma xaalis mhm. mais li coon di wax naan awma lu ñuy coow la waaye yàlla may na ma nit ñi maa ngi sant yàlla dëgg la donc boo nee père mhm. père day dem au ralenti père mhm. maintien lay def gisuñu ma ci yu bari mais maa ngi def samay live je suis plutôt live. Mm-hmm. live yi nag maa ngi joué tous les week-ends. vendredi samedi dimanche. Mm-hmm. vendredi boo bëggee gis Ousmane Seck en live da ngay ñëw Escale. Mm-hmm. Euh, boo bëggee gis euh, show bu jaxasoo nag ak maa ngi ci lébu yi muy euh, Tëngéej. tous les vendredis samedi léeg-léeg ma am ay sorties génn Petite Côte beeg yooyu. mariage sax dama koy animer léegi. Hmm. ah bien sûr. non non non non réception yi moo gën a neex soirée yi. loolu moom da ngaa ah si toolu dëgg ku la woo mariage da nga naan non. boobu boobu mariage xewul réception xewul lool. Ah. léegi réception yi moo dàq soirée yi. Ah. ci ci xaalis wala ci. Euh, xaalis bien sûr. Ah. xaalis ak ambiance xale yi dañuy sañse ñëw toog di maye. Mhm. marié bi maye. mari mari bi maye ay papaam di maye yaayam di maye nijaay xarit di maye boo ne ko ànd ak moom uh-huh. na ñu ko bëgg ñëpp ñëpp ni ñoo ngi nii loolu moo tax fi mu nekk soirée yi <laughs> macha allah am na solo loolu mais sa doom yi tudd nga euh, jabaru Bamba ak euh, kii euh, Mohamed mais dégguma nga tuddal ma jabaru Mandiaye Mandiaye moom nu mu demee noonu Mandiaye amoon na soxna mais xam nga mm-hmm. sëy bi yàggul mm-hmm. bon loolu moo tax mais dina amaat soxna léegi. xam nga sëy moom yàlla moo koy dogal. donc euh, amoon na soxna mais yàlla dafa weddi sëy boobu. loolu moo tax. mais per boobu nee nañ moo battre record wu sëy yi teel a tas ci réew mi. non léegi sëy yi moom ni muy tasee dafa ëpp. Mhm. am na léegi ku ma jot di ko laaj ni ko ana sa soxna mun ma ah waaye père 26 jours la sëy bi de si. ma ko 26 jours. kooku de moo raw moo raw saa ndax saa xanaa def na weer de. non non def na ay mois. quand même na ay mois parce que ëppul un an sax. xam nga sëy yi léegi parfois man damay ragal a laaj diw ana soxna si wala ana sëñ <laughs> bi. ndax man dama jaaxle man xaw ma feebar la xaw ma lu mu doon man daal affaire bi jaaxal na ma. mais hmm. sëy dafa dafa dafa metti moo tax il faut ñu prévoir que ni. ngoro dafa yomb te neex. Mm. mais sëy jaamu yàlla la te jaamu yàlla mënul yomb. dëgg la il faut ñu góor góorgóorlu di muñalante daal ba sëy yi daal mën a durer tuuti ko mm-hmm. ma daal xam phénomène la xaw ma la ma daal <laughs> jaaxal na ma trop. mais expliqué wala cas bi cause de divorce jaru ko lu cause lu tax nga tas ak loolu cause loolu amul solo. Mm. sëy sutura la. Mm. non non ay liy tax ma tas ak non loolu amul sens. xam nga parce que sëy boo diggante boo gis. ànd dagan na tàggoo dagan na mm-hmm. mais suturaalante dafa dafa am solo mais li a tax ma tas wala lu ngeen tax non loolu amul sens mm-hmm. non non mi ngi mel ni ay diw dafa feebar dafa dee nga lu ko daloon <laughs> loolu daf ko <laughs> jaar jaar ko yàlla waaw <laughs> ah, amul am solo am na am na solo ñu gis tout récemment ñu ni ñu signé na fi nga xamante ne moom mooy label Subatel Music waaw pour reprendre en main sa carrière musicale nouvelle boobu noonu naka nga ko yëgee noonu laa ko yëgee nag quand même bi muy dem suba teel wax dëgg yàlla yëguma ko. ah, ah si. man dëgg dëgg dëgg rek laay wax te yàlla tax. yëguma ko mais awma ci problème dans la mesure où bu fekkee ni dafa dem foofu pour liggéey wala gis na ni gis na foofu boppam y a rien amul problème rafet na nag. Hmm. jaadu na aussi booy dem nga tàggu sa waajur. Hmm, hmm. parce que lo mu ñaanal la day day yombal yëf yi rek. xam nga waaye nag. boo amee franchise bu toll ni ñëw laaj ma. Mhm. ni ma ndax yëg nga ko non man la nag yëguma ko parce que nag fen moom. Mhm. yàlla dafa dogal man moom mënuma ko. dama lay wax dëgg rek te yàlla tax mhm. yëguma ko mais ñaaral naa ko na nekk buntu yëkkati ko ci moom parce que sama doom la. mais bi nga ko yëgee woo nga ko ni ko lan moo tax. non non non man boo ma waxul duma la wax dama lay seetaan ndax xam naa ne bukki wiiri wiiri. jaari ndaare rek mm-hmm. waaw comme waxoo ma jël nga say responsabilité assumeel mais nag fexeel ba na am un bon résultat foofu daal nga taxawee yow ah nu may def mais parce que yaay waajuram tamit ah mais bien sûr raison de plus comme may waajuram buy dem foofu war naa ko yëg eh, su ma ko yëgul màgg nga nga jël say responsabilité góorgóorlu foofu mm-hmm. ba man fi ma toog ma dégg ni walla ma gis nii yaa ngi góorgóorlu yaa ngi liggéey loolu rek moo am solo réussit waaw réussite mm-hmm. ah. euh, loolu am na solo mais dañu gis ni aussi ba mu fa duggee euh, ay wax yu bari juboon na ci réseaux sociaux yi euh, ñee ay noonu waale lañ mu dem fa signé fa affaire yooyu <laughs> loolu aussi ban ban ban ban jàngat nga ci nga ci am ci wax yooyu non coow moom musique ak coow mm-hmm. ñoo ànd mm-hmm. musique làmb ay jeu yi nga xam ne ay fola ay football musique làmb xam nga basket xam nga tennis moo xam lu mu mën a doon. Mm-hmm. muy culture wala muy sport. Mm-hmm. lépp lu ñuy seetaan dafa ànd ak coow. Mm-hmm. bon lu na di ko dégg nag. mais ah da ngay da ngay da ngay rek loo dégg rek nga assumer. ay waale tey jii bu gisoon boppam suba teel walla je bes wala fu mu mën a doon day dem amul problème. parce que liggéey rek moo ko fay war a yóbbu. ay noonu waali lañu moo tax mu dem fa non yooyu yooyu yooyu ay wax la yoo xam ni. Mhm. vraiment man du ma ci du ma ci yàgg quoi. est-ce que est-ce que gisoo ni bu ñu booloo woon ñoom la famille Seck xale yi nouvelle génération bi comme yéen ni ngeen booloo woon euh, def seen benn bloc est-ce que gënul woon a bénéfique que euh, dispersion di am. tôt ou tard loolu mooy am. Hmm. incha allah mais pour le moment comme ay xale lañ dañu am kenn ku ci nekk di nga am fougue de jeunesse. Hmm. fougue de jeunesse boobu foo mu génn. parce que avec le temps dañuy am expérience bu ñu amee expérience dañuy xam ni mbooloo mooy doole mm-hmm. bu ko defee ku ci bëgg a am doole da ngay fexe nekk ak sa sa morom juboo ak sa morom ngeen def benn bloc loolu moo gën. Mm-hmm. ñoom ñëpp moo ñuy moo ñuy gënal aussi. vraiment mm-hmm. waaw. Euh, carrière jamono jii parce que bi mu fi duggee léegi xaw naa yàgg boo doon def benn jugement wala nga koy nodal ci carrière xam nga yow lan moo lay arrangé. Mhm. nga dem ba ci moom nag <laughs> nga laaj ko. <laughs> parce que man fi mu nekk nekkuma fi pour di toogal Mandiaye. en fait juste ci carrière bi yow loo koy noté yow. parce que mu ngi ci bëgg a yàgg quand même. nu ma koy noté. mooy mi ngi ñafe comme ay moromam. Mm. ah ma di ko gën a ñaax rek six wala sept wala cinq wala quatre. non loolu moom yéen laa koy bàyyal parce que loolu mooy seen loolu mooy seen liggéey quoi. <laughs> effectivement. am am na solo ñu tëj euh, brèche boobu dugg ci li nga xam ne moom mooy vif euh, du sujet muy actuel du moment euh, muy kaaw bi nga xamante ni réseaux sociaux yi nekk nga ciy wax kaaw Bambali ak ki nga xam moom mooy Tida Tida nag dafa def benn sorti bu viral wax que ni Bambali moom moo jur doomam di bébé jaara <laughs> donc <laughs> coow li nu kur boobee ba tey nag ku nekk ma ngi ciy wax yow mi nga xamante ni yow mën nañu wax ni yaay waajur bu góoru bàmbali ndax yàgg waajuram bu góor yéen bokk ndey ak baay loolu lan nga ñu ciy wax. li ma ciy wax daal mooy li ma wax rek li ma wax ci seen morom yi fi ñëw yëpp mhm. mooy que ni affaire xale la xale day def yëfu xale mag def yëfu mag mhm. jigéen def yëfu jigéen góor def yëfu góor mhm. kilifa tamit def yëfu kilifa rek li may doon doon doon doon xale gën a tuuti ci ñi ko jur dama ciy jéem a lu àq ci ni ma ko mënee ñaan yàlla nag mu nekk loo xam ne luy defar la mais du doon luy yàq coow li bari na trop mais kilifa yi ñi ngi gisee ñu ngi waxtaan pour que coow li jeex ñu jublu ci leneen parce que y a pas nag à am na yeneen yu ñu war a def maa yu ñu war a jublu lu dul nekk ci problème mu Bombali Tida mm-hmm. yéen nag lu siiw rek mbaa lu yëngu rek yéen yéen ko siiwal yéen a ko yëngal ndax yéen ci kaa rek ngeen di dox xam nga kaa yu mel nii <laughs> non sànni ma xeer xam nga li ma la wax yéen yii rek ngeen yàkkam ci quoi <laughs> xam nga <laughs> oto ba mbëkk na pitax bi pitax bi tëb na fee xam nga cof na ngeen jóg eh, père nam naa la man la waxal sa soxla rek xam naa la yëkkati xam nga li xew donc ñi ngi ci uh-huh. ñi ngi wax mm-hmm. pour que lépp rafet parce que tiida suñu doom la Cheikh Mbacke suñu doom la mm-hmm. ñu tuddee ko nag sëriñ bu mag macha allah suñ Cheikh Mbacke Bombali macha allah woy juróom di sëñ Mbacke Madina nga xam ne moo doon suñu sëriñu papa di sëriñu maam moom bu di moom bu mu doon tey sax warul woon a way moom dafa waroon a jàngi alxuraan wala mu jàngi xasida mm-hmm. ndax Cheikh Mbacke Bombali lañ ko tuddee moom la ko papaam tuddee mais nag comme yàlla dogal na virus bi ndugg na ko mu nekk xale bu am avenir man dama bëggoon coow li jeex bu ko defee moom mu continuer yoonam mhm. parce que mi ngi ci yoon te yaayam ku baax la Rama Ndiaye Rama waaw yaayam dafa baax dafa liggéey kër papaam ba nga xam ni war naa mën a nag am doom ju ko jàppale mhm. yaayam baax na sëy na dëgg yàlla euh, yaay tiide it xam nañ ci moom dara hmm. ndax ku sëy ñaar fukki at ak ñett mosoo fay mosoo ñaan baat kooku boo juree doom ah xëy na mën naa jaar ci yenn yi waaye du ko mujjee hmm. xale yëpp a yem hmm. ñëpp a yem donte nga sax jaar nga ci ndaw mais dafay jeex léegi nag moment bi nga xamee ne ci nga tollu ci ndaw di def ay erreur sa nga mag ñay def erreur sama xale mm-hmm. léegi kilifa yi ñooy ñooy ñooy ñooy rectifier rek la mm-hmm. xam nga di la corriger ba bu ëllëgee yow it nga am doom mën koo corriger xam ne bi nga tollee ci lii mm-hmm. sa waajur génnoon na nii la taxawee woon bu ko defee yow nga mën a éduquer sa doom d'accord àdduna loolu moo fi nekk nul n'est parfait ñu ngi ciy wax di ci dox pour que lépp delluwaat fa mu nekkoon la vie continue voilà. Euh, en en vous entendant parler dafa mel ni déggante nga ak wéjur bu jigéen bu. Tida bu baax a baax. Mm-hmm. déggante nañu wax nañu. y' trois ans de cela déggante woon nañ man foogoon naa ne coow li day jeex. mais père trois ans depuis boobu lan moo tax réglé woo ko yow. non loolu pour man du si fii parce que bi ma tiida ñëwee ci man. Mm-hmm. wax ma boobu maa ngi tëgg Madison. Mm-hmm. mu ñëw wax ma problème bi génnee photo yi <laughs> wan ma ne ma xale baa ngi nii man ko bul eggali kii faramareen la maa ko wax loolu. <laughs> ah dafa nuroo ak famille bi. Mhm. xam nga wala. nuróo ak Cheikh Mbacke lool. man ko kii seex a ko jur. bul sonn lii moom maa ko wax. ma gis seex ni ko xee bu ñu fontoo demal nga demal nga régler problème bi kii yaa ko jur de muy ree pour man mhm. jeex naa am na ñetti at ëpp na ko sax. moo bi ma déggaatee cool yi bàcc moo ma ko wax suma doom benn doom nga xam ne mooy yor communication bi fi mu nekk nii. Hmm. ak technique bi Ousmane. boobu maa ngi tëngeeg samedi bi passé sama jour anniversaire xale yi di ma souffleel gato hmm. ci bunt bi mënuma per xoolal tiide moo nekk ci seen bi di mën ko lu xew mënuma affaire bombaale lay wax mën ko affaire seen affaire boobu ba léegi mënuma moo nekk nii mën ko moo nekk nii mën naa mën ko daa mais ci suba si tiire woo ma ma gis affaire yi coow lu jëpp gars yi commencé ñëw ma wax li ma xam mm-hmm. maa ngi ciy dox na parce que Mapenda nekk fi mi ngi France mais est-ce que yaa ñu koy nuyoo passage déggante ngeen ci cas bi Mapenda soxlawul sax ñuy déggante Mapenda mooy man may moom mm. sama mag la ñu bokk ndey ak bàyyi ba pare ñu déggoo mu bëgg ma mu bëgg ko mm-hmm. lu muy régler fii man lay woo téléphone Mhm. nekkuma fa yaa fa nekk demal lii defal lii defal laa ma dem def ko mhm. kon lii bu fekkee dafa dal ci suñu kaw moom nekku fi vraiment xaaruma ma penda mhm. xaaruma ma penda maa ngi ciy dox li ma ci war a dox te mu toog xam na ne ci kàttanu yàlla dina mel ni moom moo fi nekk. macha allah waaw waaw bàyyi la lii sax dañuy déggante. ndax lii dégg na kay mooy wax. non moom booba tey dégguñu ko. gisuñu Bombaale fi mu nekk ni amul sax lu muy wax mbaa lu muy def ah. su ma moom sax noo xoolal parce que la mu waroo la mu waroon a wax bu fekkoon ni moom affaire bi day sottee ci moom kon ñun mën nañ ñu ci bañ a laaj parce que mi ngi màgg nag mën na gérer problème am yaa ngi dégg mm-hmm. mais nu demee ba yow la moo tax yéen dem leen si Bombaale directement. on a essayé de le joindre mais avant. ah, ah dafa fay portable am wala. je je sais pas mais mënuñu ko jot en tout yéen ku ngeen bëgg a jot mën ngeen ko jot. <laughs> Ah, bu ngeen ko mënul jot dingeen ngeen xam lan moo tax munu leen ko jot. Euh, euh. daa ngeen ko jot avant. daan ko jot avant bien léegi mënu leen ko jot <laughs> ah seen waay la te mënu leen ko jot. mënuñu ko jot demoon na ji de. <laughs> la moo loolu moo tax ngeen ñëw fii ah, loolu moo tax ngeen ñëw fii donc ñu ngi ciy dox di ci wax di ñaan yàlla nag mu jeex. Sénégal ci lii rek la ñuy dox bon lu xew rek ñu wax ci mais léegi la leen xew. Mm, ñu fàtte ko dem ci leneen noonu la ñuy dundee voilà mais léegi mu jeex yàlla na jeex ci jàmm insha allah mais ñu bari dañuy louer sa franchise ak euh, sa franc parler mm. euh, macha allah mais am na si ñoo xamante ni aussi dañ lay euh, blâmer ci sortie yi nga def parce que ñu si bari dañuy wax ne bu doon doom joo jur la nii nga waxee doo ko waxee di nga ko gérer ci suuf te doo def benn sortie ah am na ñu ko waxee noonu de waaw mais xama xama loolu dama koy respecté ndax ku nekk am nga nooy gisee mm. yéen naka la naka ngay jéem a régler ki suuf ñu li ñuy régler ki suuf mm. yéen bugg leen loolu non man waxuma ñun de ñun ñan c'est pas problème internautes yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy internautes yi apprécier mm. dañu war a xam ne ñun dañu nekk ci famille boo xam ni lu ñu def mu siiw am na ñu ëpp ay problème mais kenn déggu ko ci rajo wala nga gis ko ci télé wala nga gis ko ci journal mm-hmm. ñun dañoo nekk fayu boo xam ne lu ñu def mu siiw mm-hmm. man demuma ci kenn ci yéen yéen yéen fii ñëw dëgg la bu ngeen ñëwee ay kaamoo moo leen fii indi mm-hmm. ak fu liggéey bi toll waaw ah, mais bu ngeen ñëwee bu ngeen ñu posé question dinañ. dinañ tontu loolu rek la voilà. tey war nga ci parce que yaay waa ah mais mais sagam ñi bokkul ci famille bi sax ñi ngi wax. xanaa déggu leen Adama. <laughs> waaw Adama moom la si yoonam si coow li ba mu ba mu ciy ba mu ciy wax nii. Adama de mi ngi toj mi ngi mel ne affaire bi fi mu nekk nii. Adama mi ngi toj àdduna fi mu nekk nii xam man Adama parfois dafa koy seet damay ree ba Adama beneen affaire la man dafa dafa mel ni dafa mel ni Adama daal fi mu ne problème bi moom moo ko war a régler mais vrai parce que loolu lay nduru ndax Tida moom la dem ci appel bi di ko expliquer ni non dafa euh, man démb maa ngi koy xool maa ngi seetaan Adama mu naan Tida dina dina ñëw ci live bi te avant yaay Adama yaay Tida si boppam nee na ma aadamoo maa ngi moom wax defante nañ man xaw ma woon sax dañoo wax bay saagaan saagante ah, nañ lu métti man ma gis démb aadama moo naan gars yi maa ngi ñëwaat nag parce que man affaire bi dama kii teey nag parce que tey xaw ma lu ma liggéey dama doon jël photo xale bi teg bombaal su ma tegee cuukal bi mu jox ma bombaal yi su ma joxee bët yi ma ne aadamoo ku xuloog moom yaa ko tooñ aadamoo amul benn bàkkaar ba pare naan kaa bi ci man lay réglé woo. Ah, man ko boo ko mënee réglé kay am problème <laughs> loolu affaire jullit la sax mais li ma ci déranger rek mooy saaganteeg yàq der yeeg xam wax yu ñaaw yi loolu rek moo ma ci déranger. Mhm. parce que jullit sax war naa gis problème mu jóg dox ci ba mu mhm. waaye yàq der gi ak weer gi moom. Mhm. loolu moom laa d'accord. d'accord ah, loolu moom vraiment rafetul quoi. non rafetul mais <laughs> Adamo daal kaa ma ma ngi noonu rek en tout cas jël na kaa bi moom jëlee na ko xol. te nee na bët yi benn la cuukeel bi benn la. nee dafa teg photo Mapenda Seck teg photo Bombali teg jël xale bi teg ci digg bi <laughs> nee na loolu la def nee su ma jëlee jëbi ak ndong li mu jox ma Bombali ma xool bët yi xu ni bët yi xóotee. ak bakket bi mais man ko affaire bi jeex na kon léegi yow lan moo des cër yi jeex na di mais alhamdulilah li mooy Sénégal bu coow jibee fi muy mujj mooy waxtaan bu juboo rek bu waxtaan rek li am Sénégal amul fenn mhm. bu ñu ko mettil bu ñu ko yóbbu fu mu yeggul ay xale la yu dox ba daje am lu xew seen diggante eh, ñu war cee dox rafetal ba mu jeex mhm. loolu rek la. te moom nee na euh, dafa bëgg rek xale bi am ay kayit donc Bambaly il faut que mu reconnaître xale bi. mais loolu mooy yoon xam nga nit dafa fort. Hmm. nit li yàlla ni moom laa gën a fonk mooy nit ak noppam man daal sama gis-gis mooy nit sax buñ ko foree ci mbedd mi ñu dox ba sànni ko ñu for ko te yoon may na la ñu may la ko nga jël ko hmm. mais nga jël. nit dafa fort parce que gis nañu jigéen mu ëmb wasin sànni ci mbalit mbaa mu rey mu dee li coon way yaa may dégg mm-hmm. comme loolu lépp amu si xale bi boole na souffrance ak yaayam kenn xamul nu mu ko dundee ba tey xale bi judd na mm-hmm. tey jii bu fekkoon da ko sànni ci mbedd mi mbaa mu sànni mbaa mu xoj ko ba mu dee mm-hmm. dañ koy jàpp yóbbu ci kaso bi kon day gën a metti day gën a garaaw day gën a garaaw waaw dinañ a wax ne daa bon voilà mhm. comme loolu lépp amu si mhm. nee na kii moo jur sama doom mhm. waaye waay nit ni mu fooree ak ni mu neexee ak ñi bëgg doom te mënuñoo am doom nit am na ay milliards doom rek te ko am na bayre am na lu ne mu dese ko doom doom yàllaa koy joxe bu la ko yàlla joxe te ngaa jël da ngaa xam la moo tax mu jox la ko kenn xamul ëllëg xale bi lu muy doon mm-hmm. te nag wax dëgg yàlla nag man daal gisuma fi lu fi ñor nag bañ koy màcc mm-hmm. ay xale rek yoo xam ne dañ fee jaar par manque d'expérience mm-hmm. lii dal leen dal na ci ay famille yu bari mais kenn siiwewul nii kenn xamewu ko nii ah mais parce que xëy na famille bi moo nekk famille boo xam ne du fami bu bu nëbbatu famille bu siiw la lii moo tax xale yi war a am kilifa tamit koo xam ne loo def mu siiw dafa mel ni dafa mel ni dañuy jox raison Keba Seck boo xam il a parfaitement raison ñoom bu ñu xoolee ci lii xew nii ñu war a xam ni dañu war a am kilifa ñun way nañu fi lu nekk def nañ ko fu ne dem nañ fa ci àdduna mais coow yu mësta am donte daana am ay coow mais coow yu mel nii ah bu amee rapidement ñu régler ko parce que dañoo dañoo dañoo amoon kilifa nag kilifa c'est très important mm-hmm.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 ndax nit du mënal boppam dara ak koo mën a doon nag loo mën a am foo mën a yegg kilifa moom nga ko war a am. Hmm. d'accord am na am na solo mais per seen génération genre cas yu similaire nii amoon na ci célébrité yi wala li. amul woon moom laa la wax léegi même bu amoon tamit temewul nii. Hmm. parce que da nga daan am kilifa koo xam ne boo yàkkamtee parce que musique. dégg naa seen génération tamit ay ay ndaanaan ngeen woon de. ci lan. ci ci showbiz bi rek. non showbiz. ku ah. na <laughs> xam ne ku na xam <laughs> ne showbiz ni muy demee. waaw ah. na xam ne showbiz ni muy demee. effectivement mais ñun amoon nañu kilifa boo xam ne nag ak lu mën a xew respecté nañ ko ragal nañ ko. muy coon muy coon sec si parce que moom ak lu mës a xew tam ci digg bi lay jaar looy def boo ko xal boo ko calculer du ma ni doo def erreur. mais di nga xalaat ni dina yegg ci moom. Ah, te bu yeggee ci moom ku ne xam na ni mu ciy taxawee moom dëgg moom dëgg rek. dëgg rek macha allah yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin donc am kilifa gu mel noonu mu nekk kilifa bu tàng xol bu naqari deret mais bu ñeme dëgg mhm. boo ko amee daf lay sauver mhm. ak lu mën a xew coon mi ngi woon suñu kanam. voilà c'est important euh, ami internet je vous le rappelle euh, vous êtes dans votre émission cœur ouvert ñu toog ak suñ papa papa Ousmane moom dafa open ba pare ñi me dëgg comme mbagam rek macha allah xam naa c'est la famille lii mbirum deret la euh, mais dañ koy tëjee rek ak sa raq macha allah Keba Seck jamono ji non lii lan la. ah dafa xew. macha allah macha allah yàlla na ko jig. te yàgg lool. Mhm. te mu bañ a yëg succès. Mhm. parce que moom day door a siiw. Euh, donte mi ngi doon liggéey di am wërsëgam mm-hmm. mais fi mu nekk nii guddi yi ay guddeem la mm-hmm. ñu di ko ñaanal mu jikko lool mm-hmm. parce que mi ngi commencé def sociale bu baax ah ci biir famille bi si ci naka ma lim ci benn rek boo xam ni bi mu ñëwee fii la toog ñëw wax ma ko ni ma dama am benn terrain boo xam dama ko tabax ay finition moo ki des ma bëgg nga ñaanal ma parce que man dëkkuma fa mais dama bëgg suñu sœurs yi dëkk fa hmm. parce que dañuy luye te seen jëkkër amul yenn doole ku ne xam na ne fay luyaas dafa metti te weer ak moroomam dafa jege hmm. ma ne ko loolu de boo ko defee mën ne ko ñëpp nga ko defal parce que ñun amuñu lu dul suñu jigéen ñi hmm. te ñoom it dañuy sonn loolu tax na buñ ne kii rakki coon la rek wala magi coon la rek problème am na dañuy foog ne amuñu benn problème mm. dañuy foog ne jeexaluñ dara mm-hmm. te jamono bi metti na metti goo xam ni mm. boo ci boolee fay luyaas day metti moom mënoon na ko tabax dem dëkk foofu mais def ko tabax nee na pour ñenn ci suñu sœur yi dem foofu bu def ko ay appartement loolu lan moo ko gën a rafet lan moo gën a jaadu loolu loolu moom bu la nit ñi fayul sax yàlla moom dina la fayal boppam ndax ki ëpp njariñ ci nit ñi nag moo gënal yàlla mm-hmm. te loolu njariñ la bu doon sama sago man mi maa koy def mais yàlla dogal na moom moo ko def kon alhamdulilah ah non iñaan dafa métti de sëñ Fallou nee na iñaan dafa tardé dafa bàyyi ba yàlla dogal moom muy door a ñëw eh, yàlla musal ci ñaan waaw <laughs> ah. père moo dégg mais ci yàlla bu mu yëg succès boobu noonu ñaan bu am solo la mais dañu gis euh, kenn ci danseuru coon yi nekk di danseuru waal yi muy Ameth Chou <laughs> euh, moom def na benn sortie euh, wax ni Keba Seck dafa yëg succès sorti boobu gis nga ko ba nga ko gisee ban réaction nga am parce que maa la gis ngay ree Ameth <laughs> Thiou léegi bi ngeen di ñëw mag moom ñoo doon wax téléphone léegi la ma woo mhm. nañ ci loolu mhm. ñi fi jóge léegi mhm. waa lan people 221 xool waaw ñoom idi ñoo fi jóge léegi fépp ñoom it <laughs> ma waxee Ameth léegi la ma woo Ameth Thiou dama ba ngeen xam ni ñoo bokk famille ndax dañu yàgg Ramadaan buñ daan tukki sax ñooy bokk nekk mm-hmm. léeg-léeg mook Amari Badiane mm-hmm. Amet Thiou bu demee seenu Keba dem na fu mu war a dem mm-hmm. ndax loolu démb la day mel ni mu dem seenu coon bu ñëwee sama seen noonu bu demee seenu Assane Ndiaye wala Mapenda Seck wala Mor Dior ma ca Fran euh, Amérique benn la kon loolu xaw ma lu fa xew ndax nekkuma fa woon. dëgg mais Ameth Thiou mhm. ak famille bi. Mhm. ak Amady Badiane loolu lu yàgg la. Mhm. dara xaju fi lu ñaaw. bu ne dafa yëg succès xaw ma ci ban contexte la ko waxee mais gëw ma sax ni moo ko wax waaw. kon leeral loolu ci dara ngeen déggante. non waxtaan nañu. mu ne ma man dama amoon samay xarit. ñoom jour boobu ñoom géewuñu ñu bëgg a dem foofu nee na mu yëg ci kaw scène bi ne taxaw na fa 10 minutes kebaa joxu ko micro bi daal xaw ma genre yooyu man ko mais yow yow boo taxawoon une de temps ci kaw ah, scène bi na la leer ni kebaa micro bi moom dala koy jox mm-hmm. ndax demuloo fenn foo xam ni dañ ni waru faa dem kon loolu dama bëgg buñ la ku la ci mën a laaj it nga wax ci lu rafet comme ni ma la xamee yàgg ngaa wax lu baax yàgg ngaa wax lu rafet boobu coon mi ngi dund kon xaw ma nu ko gaa yi gisee ba def may ko mu am buzz mais loolu jarul sax wax loolu jarul sax ñu koy tawi ko y a rien de mal dara xew fa xaw ma ndax dafa wax dafa yëg succès mm-hmm. xaw ma man dugguma sax ci détail mais nee naa ko daal na nga fexe ba bu la kenn wax loo erreur ndax yaa Keba yenn a bokk lépp voilà. d'accord loolu am na solo kilifa noonu lay taxawee te koo xam xam ko ci euh, dëgg moom it euh, ñu koy nuyu au passage moom Ameth donc euh, xam naa ay détails la rek ah. comme ni ko waxee waaye vraiment jarul ñu si attardé. yéen da bëgg ay détails yéen yéen a bëgg ay détails mais loolu. père père tey daal li nga dajaleel journaliste yëpp nga may teg. mais grand naa ko teg amul problème. <laughs> mais yow ay ay ay Keba dafa yëg succès. loolu c'est pas méchant sax loolu. Uh-huh. parce que succès mën na ñëw ci yow doo xam ne tey jii. loo def rek te fi mu nekk il nga def attention parce que loo def rek tamit ñu ne dafa yëg succès. effectivement. te pourtant mën na bañ a nekk loolu. tombé waral ay ah tombé day waral ay gaaf merci. effectivement voilà. effectivement euh, Père kontaan nañ ci dalal la vraiment ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk internet yi la doon seetaan à travers Univers Info. waaw fii la ëppee contentement bi moom fii la ëppee. Mhm. parce que gis naa ne mhm. xale nga mees sax nga sàpp booy <laughs> macha allah dañuy jéem rek. non macha allah macha allah parce que xam nga. Euh, gis naa mm-hmm. ni ngay aborder say question ñu mm-hmm. euh, ngay ñu ngay ni ngay jéem a dox sama main quoi pour <laughs> pour jëm xam nga wax loo ay erreur wala nga dugal ma comme ni gars yi bu ko defee ngeen dem à une ni eh per Ousse gis nga li mu wax. <laughs> gars yi internet yi ah affaire yi vues yi gën a bëri. yooyu ngeen di ut quoi. effectivement ñu ngi jëm mais man tamit yaakaar naa ne soofu ma de. macha allah kenn day yow kenn <laughs> donc voilà maa ngi lay maa ngi lay encouragé. merci beaucoup di encouragé ñi nga àndal. Amath ak Khalifa Amath ak ay booy Pikine lañ gis na xàmme naa leen quoi booy. donc maa ngi leen di encouragé. Mhm. Euh, bu baax internet univers. Mhm. di leen xamal ni ñëw ngeen fi waxtaan nañ je pense que. Mm-hmm. bu ñu suivre émission bi dinañ dinañ am satisfaction. Mm-hmm. am naa ci yaakaar. Mm-hmm. Eh, bu ñu waxee tak loo xam ne waruñu ko woon wax. ah bëggewuñ ko noonu. li ñu bëgg rek mooy euh, xam nga ku ku fi ñëw daal. ñu dalal sa xel xam ni. Euh, tout ça passe bien. ñi ngi sant yàlla. bon lu mënta ñàkk nag fokk mu am. parce que nekk ñu àjjana nag. àdduna lañ nekk. ñu nag problème yi ak wax yi ñoo ànd mais lu ci xew rek ñi ngi ñaan yàlla suñu borom seral ko mm-hmm. ba ñu mën a jublu ci leneen amiin donc jërë ngeen jëf macha allah et j'espère que le message est bien passé comme ni nga koy waxee rek ñu amoon vraiment mbégte ak contentement dalal ko moom euh, il est une personne euh, une personne disponible ba pare jox nit cër ak lu ñu nekk nekk xale jox nañu suñu cër te respecté na li nga xamante ni moom mooy lu mu waxante woon ak ñun même si ñun ñoo tardé ñu koy jaajëfal bu baax di ko remercier di ko ñaanal carrière u jàmm ak salaam mu yeggal ak jàmm gën gunge xale yi euh, lii lañ leen indi loon tey dans votre émission cœur ouvert avec votre humble serviteur Petit Gallo Sow je vous donne rendez-vous très bientôt ak beneen invité Amar